منكتي البحث الثاني من أحكام القضايا داخ جيتلنا تناقض داخ تشتك عكس لول لوي وجه بي نينا لول تقدم بوب تقدم الطبع لا تقدم الطبع موي نياري مبير يو خامتني بي جك جيم جك بي نيكول داف جك تي زمان ولا تي مكان wala muy illa ci moom baa di sabab ci xanaa dafa nekk loo xamante ni mënu caa ñàkk ci amam comme benn ci fukk niñ ko rombe woon ku ne xam na ni fukk mënul mat te benn nekku fa kon nag jiitu benn ci fukk nekkul daf ko njëkka dafa njëkk nekk ndax fukki mën nañoo ñëwandoo taxawandoo kon nag lu mel noonu moo dal tanaaqud ak aks ndax suy jàngale adillatul aksi ndax aks dafa soxla ay dalil yu saxal aksi bi wane ne wér na wala wérul adillatu adillatul aksi ak talaata dana ko jàngale am na bu ñaareel bu ñuy wax dalil xulf kooku dafa soxla nga xam tanaaxut pour mën koo xam kon jiital gi mu jiital dalil aks li mu jiital tanaaxut doo ko indi aks kooku taqaddumu tabi la nee na boo gisee mu jàngale aks axe daal ci teg al axe al mustawi day génn axe naqid axe naqid ñaari façon yi axe naqid al muxaalif ak axe naqid al muwaafiq nee na fii axe axe al mustawi la fi jàngale donte abdou salaam dina ñëw utal bunt axe naqid ñaari xaaj yooyu bu ci nag mu jàngale ko ci benn bunt boo ñu al axe al mustawi ndax ñaari taraf yi bu ci nekk dañoo yemoon ñaari taraf yi bu ci nekk da ngay dañoo yemoon عكس دا نكو جانغ لي اصطلاحا دونت صاح ترتيب بي تولو واي نياري مبيري نيو نيك بن لي عكس من العكس لغه مو قلب جلال بن بير العكس قلب جزء القضيه مع بقاء الصدق والكيفيه والكم الا الموجب الكليه فعوضوه الموجب الجزئيه لان العكس عكس لغه ما قلب mooy qalbu shay bi jaali awwalihi aaxirahu wa aalaahu asfalahu loolu mooy ags luxatan istilaaxu nuxaadi nag istilaaxu culamaa u mantiq mooy qalbu juzay alqadiya wëlbati ñaari taraf yi ci qadiya bi bi nekkoon maxmul di mawduc bi doon mawduc di maxmul bu dee ci chartiya bi nekkoon qadiya chartiya muttasila taban munfasila mun kenn mënu ci def ags qadiya chartiya muttasila li nekkoon muqaddam bi mooy mujj nekk taali li nekkoon taali nekk muqaddam loolu lañ ci jublu mooy ku ne xamoon na ni bu dee ci xamdiya maqsuud min al mawduci mooy al afraad maqsuud min al maxmuuli mooy al mafhum léegi nag soo ko wëlbatee dafa mel da ngaa jël ki nga xamante ni maqsuud minhu mooy afraadu nga léegi nga wëlbati ko dal cee namm léegi mafhumam ki nga xamante ni nag moom maqsuud minhu moo doon مفهوم غول بتي كو نمو جعفر ادم اك عكس بي لول ماي اقل لول ماي عكس بودي شي شرط يا متصله كنيكون مقدم غا خامتاني ملزوم لون وون يا كو ديف ليغي مو نيك لازم كي نيكون لازم غا ديف كو مي ملزوم موي تالي لول ماي عكس ولا العكس قلب جزئي القضيه لول لك نيوم داي واني العكس من لوازم القضايا qadiya boo gis dafa war a nekk munaakisa am des yi bi bëgg a génn ci bu nekkul axe ci mustawi dana nekk axe ci naqit kon axe min lawaasim qadaaya seen wax bu wér la dama waxoon benn mbokk ndeysaan mu ni ma ñooñ di woote fanaaw ni ma xeer wii sax yàlla la ma ne ko nag kon aw yàlla sun borom aw xeer la kon ma ne ko kon yàlla sun borom aw xeer la kon ndax shaxsiya moom موجبة تنعكس كنفسها سنة زيد هذا كن ويرنني هذا زيد مومي بفك زيد ما هذا كن كهذا زيد كن عندك عكس من لوازم القضاء بفك خير وي يلا لا كن يلا سنبرا أو خير لا لول مي عكس المستوي تي شخصية لول مثال تي شخصية نانا مع بقاء الصدق قلب جزي القضية مع بقاء السرق عندك دسوك سرق كن بوي بوي عكس قضيه بي بو فكه دا نيكون صادق دا يكون لك صادق مانام نمو نتي سرق نك بين خم بي سرق موي آه، سين سرق اصطلاح بي مثلا دوار الصدق بي مفروض في الاصل مانام اصل بين نجابو ني صادق لا من بني نك صادق صح سو عكسه دا فورا ملات نون لولو بغا نمو تي مع بقاء السرق مع بقاء الصدق بو غيسه نيوم ني اعتبار بقاء الصدق تفك اعتبار بقاء الكذب مانام اصل بو نيكون كاذب دا فور نيك كاذب موميت ني نه عكس لازم للاصل ليغا عكس لازم لا نيل كله تملزوم سايو امي سايو نيك صادق لا نمو تي امغي لازم دا فور ام تا عكس بي ملزوم لا manam qadiya bi nga xam mom nga aks malzum la aks bi nga xamanteni mom lañ fa aks moy lazim lazim la ci mom lol nak wala yalzam min kadibihi kadhibu maana lazim ak malzum fu malzum amé lazim am waaye firiwul fu malzum nek kadhib lazim la kadhib مثلا سو جلون مثلا كل حيوان انسان لول كاذب له كل حيوان انسان انسان لول كاذب له موضوع مو افراد محمول معنا مو غنا ياتو كنا خمنا ني كل حيوان انسان كاذب له عندك لول يب عكسم لينك صادق انت هذا لي جوخ بعض الانسان حيوان مره كون بقاء الكذب لي نيوم لينكو خول بقاء الصدق لي خول والكم تمت معنا قضيه والكيفيه الكيفيه تمي كذلك والكيفيه تال بو نيه كيفيه نيم ايجاب اك سلب مانام قضيه بيغا خامتني موم لا ني عكس بو نيكي موجبه بي فينكا عكس بي دا فا نيك موجبه بو دي سالب موي سالب مثلا لول لو ملني بو واخون تاي كل انسان حيوان لول كليه موجبه لا سوكو اكسون دال لي ليس بعض الحيوان انسانا ko kenn du ko tudde accident donte sax wëlbati nga waaye kayf bu dëppoowul ndax bu njëkk bi moo jëbale bi ñaare bi nek saali bi loolu da aks fil orf ndax muujab mën na wuute ak saalib ndax li nekk muuja ba nekk dëgg mën na bu nekkee saali ba nekk kaasi ba aks bi tamit kadalika noonu masalan boo ne woon kullu insaanin naatiqun masalan loolu aksam mënta nekk saali bi abadan kullu insaan xayawaan boo ko bëggoon wax آه، لا ليس بعض ال... ليس بعض الناطق انسان دين كاذب لو ملني تامي لا شيء من الانسان فرس كوك سالب لا كوك دغ لا كون سالب سالب ووتناك مانام دغ لا تا موجب نك كاذب لا شيء من الانسان فرس تاي بوكو اندي وون موجب تاي غني بعض الفرس انسان لو نك كاذب لول تخ كون نيوم دني اعتبار مع بقاء الصدق والكيفية الكيفية نانك نعم، داي واتانديكو ليغا خامتيني تبديل بين واخ بين تودي جي غيناو داي واتانديكو سو فكنتني صدق بي دا فاي دا فاي ديس اك كيف بي تي انام بوخم انام اتفاقي رك لا نخ ماده بي مو ديمي نون مثلا كل انسان ناطق كوكو day nekk dëgg boo waxaat kullu naatiq insaan kooku sirq bi sirqul kayfiye bi ba pare nekkaat nekk muujo ba dina ñëw ci kanam kulliye muujo ba laa tanakis nafsiha ka nafsiha nekkaat kulliye muujo ba ni moom loolu ittifaaq yi ndax xususul màdd bi ndax lan dañoo gis ni mawdu beeg mahmul ñoo toll looy afraat loolu tax mu mën a tan akis ka nafsiha loolu nag ittifaaq yi la manaatiq yi ñoom duñ dëpp duñ lijjanti xadiya yoo xam ittifaaq yi rek la am ndax qad yataxallaf qad tataxallaf ñoom dañuy xool yi nga xamante ni laazim la du dàq ci benn maada foo ko tourné moo tax mu ne wal kam illal muujaba moom des muujaba kon nag baqaaw sidq dafay des ak kayfiya wal kam maanaam bu kay kam bi nu mu tolloon mu tol ko mu ne illal muujaba al kulliya ba mu des al muujaba al kulliya lu tax muujaba al kulliya ndax muujaba kulliya ak sam mën naa ba ca nekk dëgg masalan boo demoon kullu insaanin xayawaan masal kul insaan xayawaan ko kulliya moo jabala ak tam du nekk dëgg soo ko defoon kulliya moo jabani moom day nekk kul xayawaan insaan loolu kaadiba la waaye soo ko nekkee soo ko defee juzu mu nekk dëgg ndax kul insaan xayawaan li muy firi rek rek rek da ngaa bëgg a wax xayawaan yi maanaam am na yenn xayawaan yoo xam insaan loolu la kul insaan xayawaan di firi loolu la soo ko agsa mu nekk juzu mu nekk saadiqa maanaam kul insaan xayawaan soo ko waxee da ngaa wax ni yenn xayawaan yi insaan lañ kon saxal nga juziya foofu juziyatul insaan lil xayawaan loolu saxal nga ko moo tax aksi bi tey soo ko bëggoon defaat muy kulliya bëgg a waxaat kullu xayawaan insaan loolu dina kadib moo tax foofu ñu jël ko def ko juziya muy baadul xayawaani insaan sida abdu abdurahmaan al axdari waxee noonu day mel ni kulliya muujaba kese moom moo dul aks آه، كنفسها مام جزية موجبة للعكس لول عبد السلام دال دباتلنا وانني يمول تمام كسه لول ما لم تنعكس كلية قضية قضية موجبة لكن إلى شخصية حينا وتارة إلى جزية وغير ذات الكل كالكلية شخصية المحمول للشخصية فيه وكليته جزئية نحن لم تنعكس دو عكس مك قضية بهم موجبة دو عكس مك نكلية لول ما يوحب تكاتل قضية موجبة لا تنعكس كلية بل كم قضية موجبة بعكس كلية مهم موجبة شخصية لا مهم قضية بمهملة مهم انت جزئية لا قضية موجبة تقاتل لا تنعكس كلية بل لم تنعكس قضية موجبة كلية لكن إلى شخصية حين ينسعي من عكس نك قضية آه، بعكس نك شخصية لولو فكا محمول لا فنيك جزء حقيقي مثلا مثلا سؤال إيه؟ هذا زيد زيد فوف محمول مي جزء حقيقي عكس ام دينك زيد هذا سو خون تميت الانسان زيد عكس ام دي زيد بعض الانسان بعض الانسان زيد تميت سو واخي عكس ام دي زيد بعض الانسان كن قضيه موجبه من عكس نك كليه في بغيك دا شخصيه su fekkente ni mahmul dafa nekk juzi day ak saa nekk shaxsi wa xeyru daatul kulli lul kulli kal kulli comme kulli ndax shaxsiyatu mahmul li shaxsiya képp ko xam sa mahmul shaxsiya day nekk shaxsiya comme misaal ma jox sax hada zaydun boobu ak sam day nekkaat zaydun hada moo tax shaxsiyatu mahmul li shaxsiya fii ci aks wa kulliyatuhu juzi li nga xamante ni mahmulam kulli la moom day nekk juzi maanaam boo newoon zaydun insaanun aksam day nekk juzi day nekk baadul insaani zayd masalan وعكس ذات الكل والإيجابي كنفسها امتناعه كنفسها امتناعه في الباب وعكس ذات الكل عكس قضية كلية والإيجاب معنى كلية موجبة كنفسها للامتناع هو اكترم في الباب انك نجم معنى كلية موجبة لا تنعكس كنفسها loolu mooy wax bi waxoon na ko ci ginnaaw daf ko مو ni إن لم يكن إن لم يكن محمول للموضوع مساويا معنا للوقوع لأن كل موجبة لا تنعكس كنفسها اللهم لول الموضوع مي اك محمول مي دانيو يامو لول اتفاق لي واخون نانكو لغي تانك بي ني توحيد مون ان لم يكن لم نكل المحمول مساويا دي يامو للموضوع نعم نيو يامو افراد معنى انت معنى لا دال وقوع تيك تبي كون بوبا دا نيك كل يوم وجب ني موم مثلا بو واخون كل انسان ناطق كيم داي نيوات نيكات كل ناطق انسان كوكو اتفاقيه لا واخا نيوم لجنتي وون يوي